gannaaw bu mu yëkkatee kàddu moom Abdou Mbacké Bara Dolly di wax ne président Macky Sall namoon na génne benn milliard ngir mu bañ a dugg ci campagne électorale bi Moustapha Seck leader politique fii ci diwaanu Touba bokk APR yëkkati na ay kàddu di wax ne wax yooyee daanaka mënees na ko méngale ay wax yu ku daanu ci saret ñu ñëw uniquement aujourd'hui pour répondre tuuti ci rek ci lu ñu seetaan ci benn émission bu Cheikh Abdou Bara Dolly doon def man daal su doon wax député bi gëna ingrat député bi nga xamni mo gëna ñek personnalité ci département bi bi nga xamni ne seeni askanu Touba manam rëccul nañ lutax ñu fal ko té mom dafa faté manam maanaam ñu Cheikh Abdou en tant que Cheikh Abdou dafa bokk ci coalition PDS ñu falalé ko loolu moko dimbali manam poste député bi mu yor PDS ko mom fekkone PDS dafa cavalier seul mom il ne serait pas être député loolu da ko fàtte xam ni motax muy telli telli ak rajax ñi di attaquer son excellence président Macky Sall naan daf ko proposer 1 milliard pour bañu battre campagne Touba pour mu jàppale ko fi Cheikh Abdou ñun xam nañ diggam ak xaalis bu ko président Macky Sall proposé 1 milliard ni ko mu baye sëñ Baradoli mu bàyyi ko waxuma la Pape Diop. Pape Diop bu président soxla woon Cheikh Abdou Pape Diop lay négocier mais du moom Cheikh Abdou ndax moom altoppe la altoppe kenn du négocier ak mom moom altoppe Pape Diop la bu président soxla euh bokku gis-gis Pape Diop lay négocier mais pas Cheikh Abdou Cheikh Abdou na arrêté. Cheikh Abdou amul respect ci xalif général des Mourides amul respect ci Serigne Sidi moom Serigne Abdou Lahad amul respect ci Cheikh Bass Abdou Khadre la porte-parole chaque jour il les attaque mais Cheikh Abdou il est kii moom dafa gëm sëñ bi wala gëmul sëñ bi moom nee na taalibe sëñ bi la nee na sëtu sëñ bi la kon war na xoolaat boppam bu baax a baax a baax ci propos yi muy tenir bu fekkoon ni tey jii du président Macky Sall Touba ca kanam dana am jafe-jafe ci réalisation yi mu waroon réaliser yi mu war a réaliser Touba

lu mu néew néew Mbàkke la sant kilifa la jox ko considération kon na xaalis bi muy jaay ni am parce que mom bu feeñee rek nga xamni manam xaliss lay dund mom la bëgg mom la gëm bu feeñee rek loolu da moom da koy montrer kon na fexé ba di fay ci xaliss bobu mu am ay conseils ñukoy wax ci ni muy communiquer ak ni muy defee parce que waxi dof lay wax mom lay jëf diko ko wax joxul cër kenn respecté wut kenn bu ko président proposé woon un milliard kon mu bayyi Serigne Bara Dolly la la waxuma la ak waxuma la pap Pape Diop na arrêté ñun président Macky Sall lañ am fi ci dëkk bi liñu fi fii li mu ñu fi defal doy nañu ñi ngi xaar mu doli ñu kon na arrêté yi muy def ca dem ci assemblée ba jéem fexé au moins balaa mandaam jeex mu jéem satisfaire ñi nga xamni sini au moins sànni wala nañ ko carte Cheikh Abdou seen parti bokku gis-gis dañu amone problème pour manam matal ay parrain ku am ay problème matal ay parrain parrainage bi ñom jallu ñu koku mëna jaxal kenn dañu am ben représentativité mom nee na coordonnateur la bopam lay coordonné xam naa ko daaru tanzil gamu deuk dëkk fa gagner munu fa watelo 5 kër juróom vraiment dañu bëgg mu arrêter arrêter li muy def ni parce que il est temps qu'il s'arrête yi muy def ay amalgame yi muy def ak attaque yo xamni ne si ni amul ben sens dañu bëgg mu arrêter ko président Macky Sall du moromam du mappandoom ñun président lañ am ak suñu xalif général des mourides bi ca mom joxul cër xalif général des Mourid, joxul cër porte parole am joxul cër sëñ Sidi parce que boo déggee ci vidéo bi mi ngi wax naan sëñ Sidi tànn un incompétent teg ko ci mairie bi loolu du respect xam nga sëriñ bi nan lay tànnee incompétent dafa am loo xam ji ni maanaam dañ ko war a mu taxaw je vous remercie. lu mooy Moustapha Seck yeneen responsable politique yu bokk APR ci biir Touba mel na ni wax ji nga xamné député Abdou Mbacké Baro Doli yëkëti nako. metti na leen lool.